waaw ñu ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp wax na rek xëy na ko yàlla dafa xam ne ngeen ko waxee ñu sant borom bi bu baax a baax a baax waaye di baalu ñëpp àq di leen baal ñu joxaat ak yéen rek ci seen émission bi ngeen ñi bi ngeen bëgg muy jotaayu jéeg comme ni ko waxee rek ñu defoon ci lu am solo après tabaski bi avant tabaski bi kon muy lu ci wàllu tabaski. Mhm. tabaski day yëngal siy yu bare bare bare bare. Mhm. luy cause bi mooy seba naturel yére solo mhm. defante. Euh, defe naa ne amul njëriñ ku ko sa jëkkër amul. yow muñ ko te yàlla tax ndax xam ne yàgg ngaa tabaski te jamono bi dafa metti. waaye nag li ci xew ren bari na lool lool lool. waaw suñu surtout euh, soxna yoo xamante nii def nañ ay jëf yoo xamante ne. benn fan la. Mhm. te yàpp bi daanaka bu baree ba bari du fukki fan sax dafa def 15 jours. Mhm. kon di ci rafetal dafa am solo ndax am na jigéen yoo xam ne jóge na këram dem tabaski ji fekki gujjam mhm. gujjam ne ko xar mi doo ci tabaski doo lekk ci yàpp bi ndax sama dooma ko jënd ku ko toroxal na jëkkëram am na ñoo xam ne dañuy ñëw sax fekk seen jëkkër seen yaay gaañu wala itam sax seen yaay di dund am ku leen yar mais ki leen yar bu ñu ñëwee dañ leen di féewale li ñuy njëkk dugal sa bopp jëkkër kii jiw la du sa yaay lu ma def mu bu doon bu la juróom kon jeeg bu baax def loolu jeeg bu baax day ñëw fekk ki yar jëkkëram wala ki nga xam ne yaayu mbaxaneem la mu jël ko def ko yaay def ko xarit da nga ñëw sa fekk sa borom kër comme ni ma la waxee ci vidéo bu njëkk jubawul ak waa kër bi ñëpp juboo waaye bu dee yow da bëgg sa waa nekk ci jàmm mais yow fi nga sëy si ñoom waru ñoo nekk ci jàmm jeeg bu baax du mel noonu jeeg day jëllu si xelam day def lu baax parce que nag jeeg yàggul te doom yi dañuy manque te nag doom jàngaane woon nday jaar di daanu te kenn bëggul sa doom bon kon nag yéen ñi nga xamante ne jigéen ñi ñu ko sañ wax da ngeen a safaanu dellu si leen seen jàmbal seen jëkkër jàmbal seen goro te xam ne goro dafay yàgg ak doomam utti la ba garaan rakk bu jigéen dafay yàgg ak frère di bokk di tëdd di bokk di lekk di bokk di naan nga ñëw tax parce que jeegu lañ set moom lañ set bu teppi sax xëy na ko soo mën na koo ñëw mais jeegu jaasi lay doon foo jaar mu yàqu sa sa borom kër day dem ba ay frère ay propre am ñëpp da leen di écarter ndax lew sa benn jëmm te yow nga judd ba màgg ñëw fekk ñu defar jëkkër ji ba mu baax nga ñëw di sëy moom war a defar kër gi wala yaatal kër gi war a boot ñëpp yor sa mbootu boot ñëpp waaye yow naka nga ne dugg si biir kër gi salaamaaleykum kër ga tas ba ah kër gi féewaloo na ñu daan bu ñu daan añ sax di toog ci diggu kër gi yow dagg nga loolu lépp bu jëkkër ji ñëwaan ñëw toog ci yaay ji nuyoo kafree doo ko dugg néegam loolu yëpp da koy dagg jigéen dafa am priorité ci jëkkëram daf koo jege da ko gën a jege yaay gën koo jege rak gën koo jege xarit kooku nag gën koo jege dafay baax mais bu nekkee safara nekk nit ku bon koo xam ne bu dugg njëkkee dugg si néegu jabaram sax boo xamee suba bu xëyee day nuyu yaayam kooku jeegu lañ sax la wala mu jeegu jaasi doon nañ jéegi ko su bu leen mën a jéeg di ma xam yow mii def lii yow xam nga ne yow laa xam déedoo si sa xel am na ñu lépp lu ñu wax actualité lay doon mhm. ndax comme ni ñu ko defee ci après tabaski gi mhm. ñaax ngeen ñi bu ñu delloo seen xel mhm, après tabaski gi tam noonu lañ koy defee ndax saytu nañ xam ne sëy yu bari tas na tabaski gi am na ci ñoo xam ne nag ñoom euh, ñàkk nañ seen jëkkër daanaka même bu ñu nekkee ñoom ci benn kër sax ñàkk nañ ko ba pare ndax daa am jëf ju bon joo xam ne boo ko defee euh, ñàkk nga sa jëkkër te ki def jëf ju bon jooju lu mu xam la li may ñaax jéeg rek nañ baax. nga jéggal ma daggu ma la de ñooñu est-ce que sant ñu Njaay tamit. déedéet sant ñu ana ana ku leen di summi. <laughs> madame Camara ñooñu moom. Mm. foog ñu dem ba kii seen kër summi leen. waaw xam naa dañoo xiif rek. waaw loolu la xam naa dañoo Ah, waaw suñu mbokk jigéen ñoom dañoo doy waar. waaw mm-hmm. dafa nekk jigéen ju xiif. ndeysaan jigéen doo gis muy xëccoo kër. Mm-hmm. dafa nekk jigéen ju juddoo ci mbedd. mais jigéen boo bépp jigéen boo gis mu juddoo ci biir kër. Mm-hmm, xëccoo naan sama kër jëkkër la. wala sama kër la maa ko moom sa jëkkër tabax këram. nga da cee si sa wujju naan maa ko moom maa ko moom maa ko moom. am na jéeg yoo xamante ne comme ni la ko sañoo waxee rek dañoo wut si dañoo wut si mais say si natt bu xew ñu bokk ci. lu am ña nga tax lu ne ñu ngi koy jaay lu nit jaay ñu jaay ko luñ ko dimba doye jox seen yaay muy paas dem Gambie dem Guinée pour lan di sëriñ jeeg du sëyee sëriñ jeeg day sëyee mbaax yiw bëgg goro bëgg njëkkee jeeg day njëkkee def ko xarit jël goro def ko xarit jeeg bu baax noonu lay mel jotaay jeeg nag ñaar jéeg ko sa biir day doon continuité ndax nag lu ñàkk sañ ànd jëkk ay parce que nag jéegu puso boo koy waxtaanee moom defe naa ne puso dafa bari façon comme ni ko sama man di waxee rek Adama Samb puso ñett la kon nag buñ ci dee waxtaan dafay jar rek léegi ñu dem indi ñeneen daal leen ci teg en tout cas jéeg dafay baax jéeg day baax jéeg day gën jéeg day nopp jëkkëram jéegu puso day nopp jëkkëram bëgg ay njëkkeem du leen féewale am na ci ñoo xamante ne ci vidéo bu njëkk bi nañ njëkk bi mu seen xel mhm. te xam ne yàpp danga koy lekk tey mu mu jeex te tabaski benn fan la te ren metti na lool lool lool kon nag képp koo xamante ne dund nga ba am doom mhm. da ngaa war a sant yàlla ndax bari na ñoo xam te ñu ngi sëy am amuñu doom mhm. kon boo ko yàlla mayee dangay sant yàlla mhm. yor sa doom papaam di ko tette ba mu manque ba am bi mu am loolu sant yàlla la su demee ba jënd xar loolu da nga ko war a sante yàlla waaye jënd xar mayul say dëkkandoo mayoo mhm. ci sax yow yaay bi la jur mhm. waaye damay faral di wax ne ku sa doom defal teraanga mhm. nga naw teraanga bi di ko di ko di ci def ko arme de guerre danga ko defalul woon sa yaay ndax ko teralul woon sa yaay démb tey kon sa doom teralee daf lay jaaxal waaw kon nag na jéggi lu seen xel te xam ne mbon amul njëriñ gisa boo xañee sa wujju yàpp tabaski mhm. xañoo ko ko sa jëkkër nga ko xañ wallaay ndax koo xam ne ba mu juddoo ba tey mhm. mu ngi lekk yàpp mhm. di naan boisson kon benn fan boo ko xañee wàññiwu ko dara tabaski day bis boo xamante ne loo xañ nit mu ngi noonu xam nga ni ma la ko waxee rek ah, kon madame Camara kàddu yi fi wax am na solo sama mbokk jigéen yi nañ ko déglu bu baax a baax li may wax am na solo lool lool lool macha allah kontaan nañu lii lañ ci namoon comme d'habitude comme ni nga koy defee chaque jour mhm. léegi nag ñu daal di tàggatoo rek ba beneen yoon incha allah wala xam nga jéeg ji rek euh, bu ñu amee si yow yaakaar rek da ngay sonn mhm. parce que ku ñu bëgg rek wala ku ñu dégg kooku moo sonn mhm. lépp loo xam ne dañ koy wax rek yàlla defal leen dégg ak bopp bu kenn roy ku bon te jéeg ji lekkee léeg dañuy doon jéegu puso mais buñ génnee dañuy am gang gang ci biti gang bi mooy dañu am capitaine ah am chef am gendarme am lépp seen biir gang boobu noonu yow ñii dañuy nekk emprunté ñi nekk suuf jeeg du nekk emprunté jeeg du nekk chauffeur jeeg jeeg dafay nekk loo xamante ne ni jeeg la ci boppam benn jeeg di ko jiital na ko góoróom jiital wala jëkkër jiital ko mais góoróom mbedd mi bu